Nek ci gox yu koi koy ci rew mi ak ci bitim rew tan leer ak jamono di leer lo muy radio television bu wal fajiri fu ngeen mun di nekk rek maa ngi leen di boole ti juroomi baat yi ñu yalla bolé mu gëna tedd gëna sel gëna sakkan doy walis nuyo ta ben nuyo man ta doy walis ko ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëm yu tedd yu sel yi muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu di delsi wat di sofa ak yow li ma sosoon yow ci tereb yalla bile di ndabal ganale yalla gu xewal di boom ak yalla gu dëgër di leer gu bir di safara gu xam njariñ di mucc ci kep ku ca jofandiku di ak texe ci kep ku ko top di yoon wu jub wi nga xamne amul cël amul jeng tabaarakallaahu di xatte bi nga xam ne du xewi du sàpp du xat mu jot mu gën a mu gën a beese ku ko jàng yàlla yool la ñetti yool dana la jàng dana la yool ca jàng ga yool la ca dégg ga yool la ca xool ga xarafu yàlla bindal la ko fukki xiw la ca gën a néew yonentu bi ne namu ma ne alif laam mi mooy xaraf waaye alif xaraf la laam xaraf la miim timit xaraf la di téere boo xam ne ña koy jàng xeet wuñ mën a bokk ak askan wa ñoo gën ca xeet wa yonent bi ne ci hadis boo xam ne Buxaari yow muslim andi na ko Ousmane ibnu Affan moo ko génne ci yonent bi yonent bi ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alqur'an ba pare di ko jàngale mu ne kii kiy jàng alqur'an ak ki ko dul jàng alqur'an dafa mel ni tabaarakallaahu benn xeetu meññeent bu ñu tuddee ja muy caf nga goo xam ne dafa neex xet ga neex dafay xaw a niroog nag eh, xaal lay xaw a niru moom façon gàncax googu bu la neexee sax nga tuddee ko pop caf nga ga neex na xet ga neex na mu ne mooy kooku mooy melow jullit buy jàngal Quraan boo ne jullit laa waaye du ma jàngal Quraan ngaa mel ni tàndarma rek tàndara ma neex na ki caf nga waaye amul xet so ne nafiq nga waaye da ngay jang alquran nafiq nak am nay mandarga mo ko xamne fen rek ayatul munafiq idha isa isa hadatha kasaba su So fen su dehele fosi so ko holo denk ko halal ba nga denk ko kaddu mu senal ko banki halal ja ak a koku bu jang alquran timit mo ñoo xam xet ga neex na waaye amul caf nga boo ne am fiq la waaye duma jang alquran yonentu bi neen ya xet rahem xet ga dafa nakari lol tiaf nga ga ñëw xat kon nak nañuy nekk julit buy jang alquran kon mbollem nit ñi ñenti xaj lañ mbooleem ñeenti xaaj yile ba ca gën moy nekk julit buy jang alquran waye julit bu du jang alquran danaka moo bâtiment buñ tabax bam rafet ta kenn dëkkeewut ci rek moyam yag yag rek ci rap rek lay mucc kon nak gëna gor gor lu ci téeréeb yalla bu tedd kiteri ci téeréeb yalla bu màgg bile ci téeréeb yalla bu for bile jéem a ci ña cey man baña baña nek a nekk ñu yaafus ñi nga xam dañ ñu cey man muy téré bo xam moy suñu dustur ñun jullit ñi moy dusturu tashria moy constitution bi nga xam mom moom la yàlla ñu mën cee sukkandiku war cee sukkandiku xatte yi mooy balluwaayu tey yëpp ci moom lañ sàkku jullit ñëpp di ko jëfee bu taxutoo nag téere bi duñ xam lu dagan duñ xam lu xaraam téere bi ci lañuy sukkandiku xam liñ ñu digal ñu def ko xam liñ ñu tere ñu bàyyi ko mooy balluwaayu mbooleem teggi yi nii ku sukkandiku ci téere bi le xeet woo mën a nekk yaa fay gën a yaru xeet woo mën a bokk yaa cay gën a rafet jikko waaye téere bi le ku ko wan gannaaw xeet woo mën a bokk yaa ci gën a ñaaw jikko xeet woo mën a bokk yaa ci gën a xées xeet woo mën a bokk yaa ci gën a bon bi téere bi mooy outil bi ñu war a mën a jël jëfandikoo ko pour mën a defal suñu société bi société bi mënul dem mukk mën a développé ci ci xam-xam ñi xam développement ci wàllu science xam développement ci wàllu médecine xam développement ci technologie bi am développement ci lépp social ludul dul dañoo jël téere bile def ko muy suñu wéttal ci yoon wi waaye buñ ko wanee gannaaw rek yàqule moom la yàlla ne wa ansalnaa ilayka zikra li tubayyina linnaasi ma nusila ilayhim muy téere boo xam ne fi xalaat yëpp xem la dagale moom dooree fa looloo waral wàccul wenn yoon dafay jël nit xalaat fële andil yonantu bi alquran wax ca kii xalaat fële andil yonent bi alquran tontu ko ba mat diiram ñaar fukki at ak ñett moo tax xamul lenn lu cay nit di laajte lu ca dafa wuteeg yeneen téere ya ko jiitu woon dañoo boole lépp def ko wenn yoon mu wàcc benn yoon ci mu bëstal su boobaa nag man ngaa xalaat ñëw bu yonent bi du la mën a tontu lu nekk ci téere ba waaye fii nag yàlla def na ko wala ya'tuunaka bi masalin illaa jibnaaka bil haqqi wa ahsana tafsira loolu rek la loo ko andi rek looy tontu ma nga kon nag looloo waral kon dafa dagale fi xalaat yëpp xem jëm kaw moo tax nit ki mënta laaj ci téere bi lu ko génne loo ci mën a wax ak noo ko mën a ràbbee rek soo ko indilee rek alquran am na ko solution mu ku la ci tontu wu gàtt ci tontu wu fasaa ci tontu wu jub ci tontu woo xam ne wu jaara jaara yoon la kon nag téere bu tedd bile ni mu màggee ni la jàng ko ak jàngalu ko ak jàngale ko xamee xamee payoor màggee ko moom la yonent bi ba muy dem ne maa ngi dem de waaye bàyyee naa leen loo xam ne su ngeen ca ngoyee du ngeen sànku sama gannaaw ñu ne ko lan la mu ne mooy téeréb yàlla bi buum la guñ leen yoor ci diggante asamaan ak suuf Mang ngi baye di sama njabot gi ñom ñaar duñ teqalikoo ku fonku alquran fonku sama njabot gi ku len boole fonku ñom ñaar da nga ñew rot si ëlëk ci sama déeg bi di kawsar nga naan ca nga xamne kaas ya moo tolloog wi asaman ci waye timit lañ cey naan mo gëna wéx am soow mo gëna neex lem motax tax bi daan wax ne inni tarikun fikum ma in tamassaktum به لن تدلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف maanaam tax li fuu nii fiihima yonent bi واي wax ju na ngeen may xuutoo ci sama ñaar yi sama gannaaw Omar ibnu Xataab ne amma inna nabiyakum qaala inna laa taala yarfau bi hatha alkitab aqwaman wa yadau bihi wa yadau bihi axarina Omar nee na seen yonantu bi nee na ci bii di alquran ci la yàlla yëkkatee ci lay tëralee xam nga xam na fi ay ay askan yuñ jàpp ne yu suufe la yu kenn xamul donte wenn askan suufewul waaye bañ mënee téeréb yàlla bii mujj nañ gën a kawe ci askan yi waaye askan yañ jàppoon ne ñooy ñu kawe ñi di ay buur bañ te wanee téeréb yàlla bi gannaaw mujj nañu gottee ko gën torox ba ma bu gën a wàcc ci mbooleem askan yi kon ci askan wi ci téere bii ci la yàlla yëkkatee askan yi xam ngeen ne tey fii ci Sénégal xam na ci askan yoo xam ne foo ko tudd ñi teral leen askan yooya kat dara taxul leen a yëkkatiku dara taxul leen a tedd téere bi yàlla buñ ko bàyyi woon kat xem ak xem askan yëpp fii ci senegal koo jox loxo ne ko sant wa mu ne la taal bu la joxoon benn joxaat la ñaar ngir ak Cheikh Omarul Fuutiyu mi nga xam ne moo yëkkati askanu taal te yëkkatee ko ci téere bii di téere bi yàlla bi loolu la dénkoon askan wi lam leen dénkoon tamit ñanga ja kon yàlla yëkkatee na téere bi ci askan wata taal boo ko jëlee mi ngi bàyyi ko ci taala taala mooy firi gudd na rek kon nag euh, askan woowa kawe gim kawe ak gudd gim gudd ak yëkkatiku gim yëkkatiku lépp grâce téere bi yàlla bi di alquran rek ba ku la jox wenn benn loxo soo ne ko taal mu dolle beneen ngir si waxuma fuuti waaye tamit fii ci senegal ak fudul Sénégal ni ma ko waxee ci si yomat fuuti foo ne sant wu ñu la Mbàkke wallahi ku la joxoon benn loxo dolliwaat la beneen loxo ngir ak Cheikh Ahmad Bamba mi yëkkati askanu Mbàkke te yëkkatee ko ci bi yàlla bi di alquran li mu doon wax ne kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walil ilaahi bihi sakantu waaye buñ fekkoon ne dañoo waroon gannaaw téere bi xem askan yëpp foo dem ci réew mi mbaa bitim réew sant wañu ne la si ku la joxoon benn loxo jox la beneen ala kulli haal ngir ak xa Mawlaaya Seydil Haaji Malick mi yëkkati askanu si te yëkkatee ko tamit ci téeréeb yàlla bile ba ñëw fekk na fi si waaye mu yëkkatee ko ci téeréeb yàlla bile ba askan wa tey yëkkati ko ku ne sant waaye foo mën a dem ñu ne la sant wa nga ne ñas ala kulli ku la joxoon benn loxo jox la ñaar ngir ak askan wu yëkkati ko woowa alaaji abdoulaye ñas yëkkatee ko ci téeréeb yàlla bile nga xam ne dafa daan wax ne jukke bi moo fi fale de ku bokk ci man fonk jukku bi bokk ci ñi falu ci askan wi ku bokk ci man won jukku bi gannaaw fa askan wi rejeté nga bokk ci ñi gën a dem ca gannaaw kon nag buñ bàyyi woon téere bi gannaaw xem ak askan yëpp kon nag ñii ma tudd demeet boo ne daraame kenn mënu leen ci téere bi yàlla bi tabaarakallaahu saaxo saaxo yi kenn mënu ci téere bi yàlla bi siise siise yi sax góor lañ ci kenn mënu leen ci téere bi a ah, kay ñu bari mën nañ leen ci nag waaye jàmbaar lañ ci daal góor lañ ci góor lañ ci daal ala kulli xaal ah, ñii la yëpp ah, seeni kilifa ba ñuy ñëw fekkoon nañ fi sant yi waaye nag ñoom ñoo yëkkati sant yooya jox leen yeneen valeur jox leen beneen daraja ala kulli xaal te mu jaaree ci téere yàlla bi ne kon nag li Seydina Omar wax ne yonentoo ko wax wax ju dëggu la téere bi ci lay yàlla yëkkatee aw askan yëkkate ci aw nit ci téere bi ci lay daanee aw nit nit na nga ñëw sax bokku ci askan yi carrément bokk nga ci askan wi buñ la waxee nga ruyoo ci sant yi ma tudd wenn waaye nag nga lekk ndigg ci téere bi bokk ci ña koy jàng jàngaluwuloo ko fonkoo ca da ngay bokk ci ña gën a xiis ci askan woowa kenn du la compter foo toll si présenté sa bopp rek ku la nuyu sax xawlaa kii nga ne ko ah moom sama sant wi ñas la di wala nga ne ko mbàkke la di wala nga ne ko si la di déedéet loolu fa waroon a feeñ ci sa jëf ba ku ko gis xam kon nag boo boo ca neexee te neexoo ca la Maam El Hadj Abdoulaye Niass waxoon rek mooy dégg mooy daanu ci sa kaw foo toll rek si présenté sa bopp sax ngay nekk boo nekk nit ñi jox ko gëdd joxuñ le ko nga mer te fekk kenn waxul la dara kenn mer la xul la te fekk li la tax a mer yaa ko teg sa bopp kenn tegul la ko su ko defee nga mere ku la dara mere ku la waxut dara këy mën a sa xol bi tàng ci ku la gën su boobaa tamit yooyu yëpp yaa ko teg sa bopp de kon nag yàllaay yëkkatee ci téeréem bile aw askan yàllaa ci wàccee ci téeréem bile aw askan ku téere bi yëkkati ku la mën a ti amul lu nit wax luy jéem a yàq sa der boppam dong lay yàq ku yàlla xas daaneeti téere bile ngir war ko gannaaw ku la mën a yëkkati amul lu nit wax foo dafa lay may promotion buy wax fa wax ja yem foofa la yem kon nag inna allah taala yarfau bi hadha alkitab aqwaman wa yad'u bihi akharin lol la sayyidna umar wax ne maa ci yoonu harith ibn amana harith awar mune ma maa romb ci jàkka ji fekk nit nya ngay xuus ci ay waxtan ma dugg ci xàlliyu ne ko amir amiral mu'minin qana gisoo nit ñi ñi ngi xuus ci waxtan di wax rek kenn ku ci nekk di wax lu sa yoon ne ak lu sa yoon newul sayyiduna aliyu ne ma man mi dégg naa yonantu bi ne allah innaha sa takunu fitnatun fa qultu mal maxraju minha ya rasulallah qaala kitabullah naba'u ma kaana qablukum wa xabaru ma baxdukum wa xukumu ma baynakum wal faslu laysa bil hasli man tarakahu min jabbaarin qasamahullah wa man ibtaxal hadiya min xayrihi wala fi xayrihi addalahu llah wa huwa hablullahi almatin وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تسيق به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع به العلماء ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رسل فآمنا به اسكي عمر بن الخطاب نكو بو boo xeboon noppi maa dégg yonent bi ne هم sama gannaaw gu rëy nit ñiy wax lu waxuwul ñii di jëf lu jëfuwul ma laaj ko ne lu ñu mën a génne ca finna ba mu ne téeréeb yàlla bi rek ku ca sukkandiku mucc ca finna ya finna ya nag lu ci ëpp doole jamono ji réseaux sociaux yi amul ñu bëri nekk cay sos rek ñu bëri nekk cay yàq deri gor ñi ñu bëri nekk ca monte ala kulli donte lu baax a nga ca lu bon a nga ca waaye ñu ci bëri dañoo tànn lu bon la di ko jëfandikoo boobaa nag mu ne kon jëfandiku loon téeréeb yàlla bi rek solo ñi leen jiitu woo ci maa ngi nii tey jàngal naa la ci xisaab aadama te moo moo jiitu moo ñu meññ yonentu yàlla noox wax nañu ko ci ibrahima muusa moussa isa ak ilias ak sakariya yonentu yàlla moussa ak sul kifli isa ak sul xarnayni yëpp téere bi wax nañu ko kon naba uma qablakum mu ne xibaaru ñi leen nekk seen gannaaw seeni histoire yëpp téere bi wax na bu ngeen xamee jafe-jafe pour war a dem ci atte téere bi taxaw atte leen moom de dëgg la duhut caaxaan ku ko baxi gannaaw ngir ak rëylu yàlla toroxal la ku sàkku njub ci lu duhut téeréem bi yàlla sànk mooy téere mooy buum gu dëgër gi nga xam ne ku ci ngoy ngoyal mu dëgër ndax ngoy nga fu dëgër mooy turu mooy mooy zikrullaahi turu yàlla la bu xereñe muy téere bi yàlla bu xereñ bi zikru lañ koy tuddee waaye tamit téere la bopp mooy yoon wu jub du du jeng mukk di ànd ak bànneex yi làmmeñ ñi lënt ba dugal ci lu ca bokkut mbaa mu génn ci lu ca bokk loo bari bëri xam-xam doo ci ca moom loo bari bëri loo koy jàng du tax mu xewi kéemtaan ya ca ne tamit kenn mënu koo jeexal ba jinne yi nga xam ne ku jommi ñu ne fa gis jinne moom jinne yi bañ ko déggee dañoo mujj jommi ne ñun inaa same naa quraanan ajabaa kon nag téere la boo xam ne yonontu bi nee na ku ko waxee wax nga dëgg ku ko jëfee ñi yool la ku ca woo maandu ku xootee woo jëmee ci moom danga nga jub da nga jubale jëmee ni ngi ci yoon ci al kon nag jàpp leen téeréeb yàlla bile lii lépp ci la nekk xadis la bopp tirmisi wu moo génnee xadis bi kon nag nañ koy bàyyi xel téere baa ngoog di alquran ak wax ju réy ji ci yonent bi wax wax ju réy ji ci aboubacar wax wax ju réy ji ci sayduna omar wax ak wax ju ji mu mujj laa wax sayduna aliyu jëlee ko ci yonent bi mu wax ko kon timit téeree la bopp yonentu bi nee na koo xamee na ni mënoo ko yaa ngay eh, fara feraloo hijj di hijja ka boole dañ lay bindal ñaari payoor payoor ak tudd gi nga tudd xaraf ak payoor ak effort bu métti bi nga def waaye waxun na nag ka ko man lañ koy bind ci payoor ka koy man moom payooram nga dafa bëri ba kenn konti hut ko loolu loolu loolu lañ mën a déggee ci hadis bi waaye bul ca déggee ne ki ko mënut di fer ak a hijji mo hepp yool ka man dedet ka ko man moom fi waji jaar la jaaron ba man ko di lolo waral koka payoram ken xamut na muy toll kay jéema nag koka mom moom ñaari payor lay xam kon lolo lolo loolu ngay meuna a ya hadis bi rek mana man mana xam la ci yonantu ba sallallahu alaihi wa nam kon nak yonantu bi neena sallallahu alaihi wa kep kuñu wéré fe ci sa bir bi fekkun ci alquran yaak neeg bu rap yéen hem nii bu ràpp boo xam ne lëngeen yaag janax yaag kaña yaag ñëpp a nga ca moo tax mu ne inna rajula alladi laysa fii jaw fihi shay'un min alquran kal baytil xarib yi boobu tirmisi yu moo génnee xadis bi xadisun xasana la su ko defee sayduna mu maa dégg yonantu bi ne xayrukum man taallama alqurana wa allamahu aïchatu mu ne maa dégg yonantu bi ne almaahiru bilquran maxa safaratil kiram albarara ku man alquran settantal ko di ko rafetal bu yowmal qiyaame yaag malaaka yi yéen ay bokk luusement ngeen a yéeg di nawa ka fune ne ngeen dem waye nak mune ne wallazi yaqra'u alqur'ana bole ko di nak nakal mune fek wa huwa alayhi shaqun lahu ajran yata'attahu fiihi wallazi yaqra'u qur'an wa yata'attahu fihi wa huwa alayhi shaqun lahu ajran moy payoor tuddu harafwa ak payoor Euh, effort gi mu doon def waaye ki ko xas man moom di maahir bi payooram dafa bëri ba kenn mënu laa wax lii lañ koy fay kenn xamul na mu toll rek ko xam moom koy fay kon nag alquran ak ngóog nañ ciy bàyyi xel te fonk ko bu baax yonentu baa ngi wax di xemem loo nit ñi alquran ne al bañ ko laajee ibnu habasa ko laaj ne ko waaw benn la benn mooy laaj jëf yi ban moo ci gën ayul amali ahabu ilallah jëf yëpp lañ moo ci ëpp cofeel ci yàlla mu ne ko alxaalu almurtaxim mooy kuy wàcc di yéegaat rek koo xam ne saa yu kaamil bi jeexee minal baqara la commencé ba ci ilan naasi bu jeexee rek mu commencé at baqara ba naasi saa yu jeexalee rek dafa yéegaat kooka moo gën moo xam par juróom-ñaari fan lay lay wàcce ka yéeg moo xam par ñaari fan moo xam par ñetti fan moo xam par weer moom daal comme saa yu jeexalee xiigaar rek koo kaa gën moo tax li xew léegi tànn ay saar jàngal tabaraka jàngal luqumaan jàngal maanaam yaasin baax na waaye xam na lu ko gën la ko gën mooy commencé ca bopp ba ba ca genn ga bu jeexee nga commencé ca bopp ba ca ba ca genn ga loola ëpp doole fépp moo gën jëlab jukki def ci ay saar naan lii ngay jàng lii ngay jàng déedéet lee ko gën fuuf alxaal almurtaxi la yonent bi wax waaye nekkul fanaan nangam ak nangam dedet lolou nak dafa xew rek ñen ñi bëgg seen marché dox ñi fexé ko mool jël lolou diko ko jaay rek waye li li gën moy li kon timit alquran a jang kat bi bu ëllëgee dañ koy wax ne ko Iqra warqa Waratil. kama kunta tartilu fil quran kama kunta tartilu fil mana? tartilu fil quran fa inna man salaka inda allahi aqiru ayatin taqrawha axrajahu tirmisi yu mu ne fi nga xem ci alquran rek foo lëggee mooy nekk sa daraja ci aljana fa nga toll rek a yéeg bi baax na di bu la fekkee nga wàcc ba pare yéeg rek ne alif laam miim dalikal kitaab dee su ko lëggee nag fa gën a kawe ngay dëkk bu la fekkee tamit nga yàgg ci suratul baqara ci aayaat ya yi fa ak askurku ñu seet lam tolloog numéro booba nga dëkk ca aaya bu ne ak numéro ci alquran ci ca darajaatu aljana ya ñu numéroté fa nga xam rek ba ñu ne fi fii mooy si dëkkuwaay kon nag nañuy yéeg ka wàcc moo ëpp doole lépp waaye boo nekkee fenn yow yéegoo wàcciloo ci wenn saar nga nekk ca rek baax na waaye gënut yowmal qiyaam ki jàngoon alquran yàlla da koy décorer comme ni feete indépendance bu jotee ñu doon liggéeyal réew mi lañ leen di décorer ñooñu yàlla dañ leen décorer ci takkaayal tedd nga yàlla ne wàccee naa ci seen sama seen kaw yéen ñii mënoon alquran di ko jëfee mokkal ko ngërmande go xam dutuma len jéppati mukk yalla nañu ko yalla wax yalla nañu ko yalla wax defal ko mbooleem jullit rawat na jankati alquran mu ne ku mën alquran timit yalla ku bax la du hem ci décorer la ndax ka jankatu wa bi ma gis bu ñuy décorer gaay ñom rek lañu décorer ngi doon liggéey waye nak yalla ñakoy liggéeyal bu yowmal da len décorer ci téréem bi décorer seen wajur ya ndax bu duñu xam man qara alquran wa amila bi aa ah, su boobaa maanaam ulbisa walidaahu yowmal qiyaama taajan daw uhu ahsanu min daw ishamsi fii buyuti dunya yonent bi nee na ña doon jàng alquran bu yowmal qiyaamee seen waajur yi say yàlla dañ leen dekoore ci mbaxana moo xam ne leer ga moo gën a leer jant bi jant bi yëpp bu ñu ko xamaloon ci benn néeg na muy leeree nu ko raw maanaam eh, mbaxana ma la yàllay takkal moo koy gën a leer kooku hadis la Abu Daawuda moo ko solo bu bokku ci hadisi Ali ibn Abi Talib yi ba tey tamit bi neena ku jàng alquran qur'an ta diko jëfee la yàlla daganal nga daganal ko ci lam haramal nga haramal ko ci dana la dugal aljanna du ci xem dana tan fuk ci sa wa keur ñu wara dem safara nga ràmmu hadis bi Tirmisi fi moko solo kon nak lolu jarna bahi baxi xel fa ahala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu allah bihi aljanna wa shafaahu fi 'ashrati min ahli baytihi kulluhum xad wajabat lahumun naar axrajahu tirmidi bi ko defee tamit yonentu bi sallallahu alayhi wa lii lépp mi ngi koy wax bëgg nit ñi fonk alquran bëgg nit ñi sopp alquran bëgg nit ñi tamit di jëfandikoo alquran waaye tamit am na ci ay hadis yu ñëw yu tëkku ñu wan alquran gannaaw koo xamee doo jàng alquran yonentooy wax ne man qaala fi l qurani bi xayri ilmin fal yatabawwa maqaaduhu minan naar képp kuy wax ci alquran te la ngay wax ci alquran tegoo ko ci benn xam-xam sa xalaatu bopp dong ci nga ko sukkandiku préparel sa kër ci aljana sa sa kër ca safara maa ngi lay jey sax ne aljana ngir juum waaye su ma juumee moom yàlla moom du juum mukk kon nag nañ góor góorgóorlu tabaarakallaahu ci jàng alquran ji le nañ góorgóorlu ci jëfee alquran ji le nañ góorgóorlu ci jàngalu alquran suñuy doom ah fexe tamit ñuy jëfee alquran ca nañ ko gën a gaawe ak nam gën a teddee ak ca nam gën a sellee alquran mile suñ xamoon li ci yonantu bi daj luñ ci daj xet lu ci yonantu bi ñaar fukki at ak ñett ci la ko yonantu bi jàng ñu njëkk a wàccee ci moom qara mu jee wàccee ci moom wattaqu yawman turjauna fihi ilallah aay ja njëkk a wàccee ci moom daara jaa metti ba mu delluwaat kër ga moo tax ñetti fanu daara ku ci jaaru xamoo metti moo tax yonent bi keroog première journée bi ci daara dafa delluwaat ca kër ga ba mu demee wax soxna si ne ko sàng ma mu ne ko du sotti de yow mi war a sàngi xel yi sàng du la jagal génnal nga dellu boo demee bu la waxee jàngal nga ko lu may jàng yonent bi nee na ñett ñett yi ma jibril ñett benn bu ci nekk foogoon naa sama ruux gi dana ca génn waaye comme kan yonontu bi lañ njatt yow kon bu jéngee sa doom doo ko muñ yonent bi lañ njatt bu sa doom yaa xamee picc ko sa pasaay doo ko muñ bi lañ njatt bu sa doom ñu dóoree ko gaañ ko doo ko muñ yonent bi lañ njatt bu sa doom ji jooyee ngir alxuraan doo ko muñ xam ngeen ne njatt du dara lu dul doq guñ kuttu rek doq guñ kuttu nag moo gën a métti tànk yuñ xeew moo gën a metti loxo yuñ xeew moo gën a métti am pes moo tax mu ne li muy am am kartan li muy am am fit nee na ñetti ñett yi benn bu ci nekk foogu naa sama room ko na ci mu delluwaat ca kër gi waaye doom boo ko yóbboo ci daara bu amul parent bu mat parent mooy baay ju mat baay wala yaay ju mat yaay rek jàng ma yàq bu ñëwee ba nëbbat ya commencé sosal daara jël lii daara jël lii dañ ma def li sa xolab yërmande bi ñew rek nga nga nga nga ne dotul deloti dotul deloti waye dana la delo fo xamne de wallahi boko yegon delo gi sa doon ga ci dara ja man mala ko wax su ko defé ngeen dotul deloti dak tey ko fa waye gis nga yorontu bi bi mu ñewé ñipsi baye ko ke dara ja mu metti khadijatu ne ko delul man ta ñak koka moy yaayi dara pire ngorem yaayi dara yi sen chef moy sayyidatuna khadija waaye boobu bu sàngoon yonent bi na ko tëddal taxawal ma defal la soow nangam ak nangam daara ja yàqu léeg-léeg tamit bàyyi joo xam ne yaay jaa ko taxaw baay ji ne day dellu yaay ji ne ko ah bu naree dellu alaaji bu naree dellu ma ñibbi sama kër bàyyi yow doom ji yow kenn juróo ko nangam ak nangam sa jabar ji mat la seytaane yàlla bu mu la nattu ngay góor ak seen si njabar nga ne ko kon kay buy loolu nañ ko fi far bàyyi rek xale ba màgg nag yakal len sen nyar yeen ñaar ñëpp yàq seen àllaaxira lu ko jar yóbbu ko ca daara ja waye tay daara yu bari parents yi ñoko yak yàq daara yu bari mbokk ko yak pa daara yu bari xom ñu naan bàjjenu gox yi lu ci bari luñ gis wala ñu degg ko dem def euh, seen euh siwol jangale kat yi bol len ñu yak sen nangam ak nangam Wa bàjjenu gox yi xamal ci sa bàjjan gi dem toppatoo ku ñuy mur dem to toppatoo ji maanaam ak leneen la ci xajoog sëy yaag la ci xaju te bàyyi borom daara yi xam na ñoo xam ne wallahi ku leen joxoñ baaraam yàlla damm sa përëg maa la ko wax bàyyi leen ci xel ku yàlla garanti ne maa koy wat ku ko bëgg a toroxal torox kon xem leen ci seen gox yi bàyyi daara yi alquran yi ngeen bàyyi ci bu baax a baax a baax kon nag alquran na ngóog ak foor ga ca jàng ga alquran na ngóog ak lu ci yonent bi taj ñaar fukki at ñett lépp muy continuer dem daara lépp ñeenti yoon la ci jël feet benn ñeent fukki fan la jël feet kon muy wenn yoon feet ga diire ñeent fukki fan ci diirab ñaar fukki at ak ñett ñun nag korité ñi feet tabaski ñi feet gàmmu ñi feet siyaara ba ñi feet màggal ga ñi feet eh, lu ne ñu feet moo tax ñi yéex a am résultat wa yonantu bi ñaar fukki at ak ñett wenn yoon la jël feet kese li muy mën dafa bolé won ak jang ak jangalé dina la wax sax lolu émission spéciale da doon saaba yi daan jang ak jangalaté ak nañ jangalé alcorane ba mu yegg si ma rek suba ci waxtu wi in uridu ila Islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu li unni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله حتى يرضى والصلاة والسلام على النبي المرتضى سيدنا ومولانا محمد المرتضى وعلى آله وصحابته ذوي الرضا والتمكين الحمد لله حتى يرضى والصلاة والسلام